waaw maa ngi lay nuyu bu baax Pape Ousmane tey euh, dañuy monter li nga xam ne ni mooy euh, comité électoral bu nga Ngaparou muy euh, quartier boo xam ne ni quartier mythique la bu naan gaparu te Abdoulaye Diouf Sarr dëkk fii parce que ñun au niveau de Yoff dañu organiser wu ñu manière boo xam ne quartier bu nekk dafa am comité électoral moo am comité électoral boo xam ne mooy au niveau communal moo li yëpp tey nag man mi nga xam ne ni maay responsable nga Abdoulaye Diouf Sarr teg ma fa nekk suma mag maay euh, wanewu rek waaw damay damay wanewu rek waaw damay yëglu rek waaw tey gis nga lii fi xew yëglu rek la waaye bu ñu jogee dinañ xam ne kii parce que yoof dañuy wax ne ku ki gañ euh, école de maanaam fi nga xam ne waa Ngapoor foofu lañ gañee gañ les élections parce que dañu macha allah donc loolu moo waral tey ñu ñëw rek pour wanewu rek. ñan ñoo fi daje ba nga jàpp ni. Euh, euh, maanaam day yenn bu ci yéen ci élection yi ngeen gagné ko ñan ñoo fi daje parce que gis nañ fi ay responsable yu bëri quand waa waaw responsable yi fi nekk mooy responsable Yoff le premier adjoint au maire euh, Abdou Naan Beng mu ngi fi honorable député Mariam Gueye mu ngi fi ah ñi nga xam ne ni ay ay notable Yoff lañ notable Yoff yëpp ñoo ñëw tey vraiment wuy sama yaa aussi suma xarit Ibrahima Fall nekk adjoint au ñëw ah ñeneen ak ñeneen. vraiment pour accompagnement ñu ñëw rek pour pour mobiliser vraiment militants yi waxtaan ak ñoom mu nekk feet si ñun bu ñu paree nag ñu song li nga xam ne ni mooy euh, campagne bi. muy ñaari défi yu leen di xaar. confirmer ko ci mairie bu Yoff waaye yóbbu ko ci ville bu dakaar fan ngeen di jaar ngir ñaari défi yooyu ngeen rëble ko. man maa la ko wax Yoff moom du problème parce que Yoff Abdoulaye Diouf Sarr ñoo ko moom ñëpp xam nañ ne sa base naturelle Yoff la. donc chaque fois depuis 2012 day gagné yoof loolu macha allah élection 2014 wane na ko naufrage bi mu amee pouvoir bi perte 19 communes yëpp yoof dañu ko gagné loolu moom dafa leer mais beneen bi mooy li nga xam ne mooy ville de Dakar da ngay xool rek candidat yi ñu andi ku ne ñu andi sa profil man waxuma ay diwu ah diwu profilu candidat yi te yow xam nga ne dakaar ni nga xam ne moom la ñuy voté dañuy voté c'est un vote intellectuel dañuy xool le candidat c'est un rendez-vous entre le candidat et la population de Dakar. Et la population de Dakar c'est vraiment discerner qui est le meilleur qui a le meilleur profil et qui est le meilleur candidat. Et il photo. Prenons tout le monde. ñenn ñi je les respecte beaucoup mais ñooñu ils sont au crépuscule de leur vie. ah ñan ngay tudd ñom Pape Diop mu ngi fii Doudou Wade mu ngi euh, ku mel ni euh, Barthélémy Diaz tey moom la ñu gën a. Doudou Doudou Wade suma suma maam il est au crépuscule de sa vie mais ñeneen ñi laay waxal. ñeneen ñi jëlal Barthélemy Diaz nga teg fii nga jël Ablaye Diouf Sarr nga teg fii ñu wane profil wane diplôme wane jaar-jaar nga xam ne y a pas photo et je pense que les Dakarois dinañ xool qui le meilleur candidat parce que Ablaye Diouf Sarr bu dara dul dara li mu wane si Covid bi rek dafa doy tey aujourd'hui zéro cas loolu rek doy na doy na campagne waxatuma laa li mu li mu def kudd bi mu fa jaaree est-ce que est-ce que xam nga ne l'acte trois de la décentralisation c'est au temps de Ablaye Diouf moom si boppam moo ko matérialisé donc ah oui quand il au niveau euh, du ministère la gouvernance locale donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience boo xoolee Air Sénégal biñ koy liwal mu nekkoon ministre transport aérien moom moo taxawal Air Sénégal moo def acte de la décentralisation Covid bi ñëw mu defaat ni fépp fu mu jaar rek wane na fa vraiment son empreinte bon kooku wax dëgg yàlla c'est le maire candidat ñun duñ wax si yeneen considération dañu xool profil ak profil xool candidat ak xool vécu ak expérience donc bon y' a pas photo. mais justement li ngay wax nii tey moom la ñu gisagul li ñu gën a gis mooy ay kaddu yoo xam ne dafa nuru violence commencé impacter langue politique bi de part et d' autre euh, barki Dembo Ndiaye Barthélémy Dias dañu jàpp ci caravane bi doon def ñu jàpp ni Abdoulaye Diouf Sarr def na ko te waxuñu ko dara deux poids deux mesures bi ñu xaw a sentir mu mel ne dafa polluer le débat yéen ban taxawaa ngeen ci am ban lecture nga ci am. moi que euh, Sénégal dañu war a apaiser le climat politique social. parce que nit ñi talu ñu xeex talu taluñu xase taluñu xuloo aujourd'hui Ablaye Diouf Sarr bu ñëwee jaar fii Barthélemy jaar fii dañu war a bàyyi Barthélemy mu dem bàyyi Ablaye mu dem parce que problème bi mooy c'est les gens qui vont voter et le 23 ñit ñi ñooy dugg a voter nañ bàyyi ñit ñi ñu wax ak ñoom ñit ñi xam nañ discerner te am na nu muy demee sax dafay mel ni dafay ki ci Ablaye Diouf Sarr si dara pouvoir bi du si dara donc bon mbir mi si urne la mbir mi population yi la ñi nekk seen kër di xool di ràññee xam li xew ràññeel yi parce que Dakar du beneen kii Dakar ñëpp xam nañ ne dëkk la boo xam ne ñëpp dañ xam ràññee donc les gens savent qui a qui est le meilleur candidat qui a le meilleur profil te loolu man gëm naa ab Ablaye Diouf Sarr moo ko am tey le 23 incha allah les Dakarois vont voter massivement pour le candidat Ablaye Diouf Sarr. avant peut-être ñoo ñëw ci programme beeg yeeg ko war dernière question mooy dégg nañ charte de la non violence bi ñu prôné pour les locales Ousmane Sonko sànq maa ngi koy wax na ni moom moom du ko xaatim du ko signé. est-ce que c'est une de dire que position bi mu yàgg am moom lay am mooy que ni combat la woote diggante ak yéen ñi nga xam yéen incarne le pouvoir. en ce que j'ai à dire par rapport à cette question je le demande solennellement à Ousmane Sonko d'aller à Ziguinchor là où il est candidat et de faire la violence là-bas à côté de des Ziguinchorois si il veut vraiment faire la la violence nous nous sommes de Dakar. et il n'est pas candidat à Dakar. Le candidat à Dakar, c'est Barthélemy Diaz, Ablaye Djoussar et les autres. Donc il n'a qu'à nous laisser. Nous voir yooyu yoy meurtrière. yi nga xam ne moom la am mu téye ko mu dem il est candidat na dem Ziguinchor xëccoo ji foofu noonu moo gën mu jógee nekk Dakar di fi indi xeex a xuloo kii xeex xuloo ak xeex dafa weesu loolu dafa jeex n'est-ce pas donc loolu wax dëgg yàlla moom laa bëgg wax par rapport à ça bu signé bu signéwul na dem Ziguinchor mu dem ñafe foofu ak Ablaye Balde ak yeneen candidat yi nga xam ne nii ñoo fa nekk moo gën mu ne fii rek di saaga di xuloo di xeex di indi fi problème yoo xam ne kenn xamul boo ko convoqué buñ convoqué kaneen mu dem boo ko convoqué mu dem bu liwee kii moom daal dafa mel ni Sénégal benn nit moo fi ne bu ñaan Ousmane Sonko wax ca mel ni moom moo ñu moomoon wala maamam moo moo moo moo moom moom Sénégal wala kaneen moom de grâce moomuñu quoi nañ may dimbali ñu wax dëgg yàlla mu yam quoi waaw loolu daal laa am lu mu wax si par rapport à ça waaw. à part bii ban mooy prochain acte yéen a ngi waajal lu mel ni comme investiture tey Barthélemy Diaz yéen kan la ak ban façon ngeen koy defee ak kañ lay doon. maa ngi wax et solennellement je le dis la date sera communiquée dans quelque temps mais incha allah donc bon dat euh, date bi di ngeen ko yëg te ce sera un speech ce sera à la américaine nit ñi. Euh, Ablaye Diouf donc candidature am bu génnee dinañ xam ne saa c'est une candidature bu mais woy maa la ko wax non ay surprise moo si am te man xam naa ne ma parce que je suis le président du pôle organisation n'est-ce pas du directoire de campagne de Ablaye Diouf donc bon man xam naa jërëjëf waaw. promettre ay show promettre une organisation promettre mobilisation surtout. organisation une bonne mobilisation loo xam ne mosu fi am loolu moom la ñuy joxe waaye. loolu moo leer waaw jërëjëf